Barthélemy Diaz gis ngeen dogal bi nga xam ni Cour suprême jël na ko ci démb dal di dëggal daan ba nga xam ni daanoon nañ ko en première instance et en appel Barthélemy Diaz te mu yóbbu woon mbir mi ci cassation pour ñu xoolaat acte boobu acte boobu li mu wax mooy ñaari atu kaso yoo xam ni juróom benn weer yi lay tëdd ak ñaar fukki million juróom yoo xam ne da koy dàmpe njabootu Njaga Juuf loolu nag li mu mën a jur ci conséquence ci wàllu politique ci Barthélemy Diaz mooy lu mu néew néew mu perte mandat député waaye lii yëpp am na ñoo xam ne sax bu ñu ko xoolee mbir mi da leen di defe ree ndax taxawaay bi nga xam ni gis nañ ni Barthélemy Dias moom la am ci jamono yëpp ñu génn ba nga xam ni meloon ni ku xam nga jege le président Macky Sall moom sax wax nañ ci gémmiñu boppam ni ko jaloog bi bu amee ci pexey boppam la moo ko dox moo ko wax moo ko laami soog président Macky Sall ba mu mën a am waaye gis nañ li nga xam ni moom la dialogue bi jur muy tàggalikoo bi nga xam ni am na ci Yewwi Askan Wi gis nañ kàddu yi nga xam ni itam ñu bëri rafetluwuñ ko yi nga xam ni moom la Barthélemy Dias yëkkati woon jëmale ko ci Ousmane sonk am na sax fu mu waxee ni Ousmane de bu ma déglu woon tey du dem kaso maanaam li ko yóbbu kaso bu fekkoon waxtaane nañ ci suñu biir ba mu nangu tànk yi ma doon jox kon du yegg kaso muy nag lu doy waar parce que defe naa réew waruta mën a doxe noonu te Ousmane Sonko lu ko yóbbu woon ca jamono yooyu ba mu bañ a dem ci dialogue bi tey jii fi ñu toll tembe foofu la Barthélemy Dias toll ndax li ko teree lu yóbbu ci dialogue bi mooy ñu jël ay dossier judiciaire ngàll la ko jàpp ñoo xam ni say ñooñ lañu am ay nombre ci sa parti yemuñu ci ñu bëri ñoo xam ne ñu ngay wuyoo say militan ñu jël leen dugal leen ci kaso bi donc ba ñuy woote dialogue bi dafa mel ni dañu créer ay conditions yoo xam ne Ousmane Sonko moom falaa bëdd du ci mën bokk wala du ci nangoo bokk wala yaramam dina seexlu mu dem di bokk ci jaloog bi ci jamono jooju dégg nañ sax wax ji ci président Macky Sall waxoon ba naan ku gedd sa yaay aye di gaaral jëme ci moom ça veut dire que donc ñoom lañ jublu woon ci dialogue bi am na te. Barthélemy Diaz nag am taxawaay bu doy waar bu mu ci amoon ci jamono jooju ba yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko kàddu yoo xam ni ñëpp dañu jàpp ni même bu fekkee ne da doon war naan Ousmane sama doomu ndey la jàpp nañ ni ay kàddu war la woon tey nag mbir mi dal na ci kawam parce que ab diir lañ ci teg ñu yëkkatiwaat mbirum Ndiaga Diouf ak li mu ko mën a jural ci wàllu politique dem na sax bay wax di gaaral le président Macky Sall naan li nga xam ni moom lañ ko waroon sedd ci loolu ñuy wax contribution économique locale dañu ko jële ci ñetti milliards yu topp ci at bii ñu génn indi ko ci juróom fukki milliards ak juróom maanaam wàññeeku bu doy waar te moom jàpp na ne li ko indi mooy xeex ko ci wàllu politique parce que dañu yaakaar ni ñetti milliards yooyu et quelque bu ko yoree. dina doon gafaga gu duun goo xam ne dana ci ànd ak Khalifa Sall campagne ko te bu boobaa mën na am lu mu leen jural ci élection présidentielle yi ñu dëgmal waaye defe naa Barthélemy Dias dafa gaaw a fàtte li tax mu gaaw a fàtte mooy bi muy toog a toog ci maire de Dakar jël na bataaxal yu bëri jébbal ko président Macky pour bëgg waxtaan ak moom ñu toog waxtaan. te li mu ko tegoon nag jaadu na may maire de Dakar dëkk bu toll ni Dakar yow nga nekk président de la République même bu ñu bokkul benn wàll ci wàllu politique war nañoo mën a diisoo te ñan la ñuy doxalee Dakar capitale du Sénégal waaye président tontuwul ci bataaxal yooyu dal di koy doyee dal soofal ko ba sax fu mu ëlbatikoon di wax lu mel noonu naan bind naa ko waaye nangumaa recevoir gis nañ itam bi mu toogee ab diir am na xew-xew bu mag bu amoon fii dakaar ñu koy tuddee forum mondial de l'eau waaye gis nañ coow la ca am ci digganteem ak président Macky Sall ci kan ci mairie de Dakar wala gouvernement du Sénégal moom la ñu war a bàyyile mbir mi ba mujj gi sax dafa mujj gedd moom demul bàyyeeg mbir mi état du Sénégal kon kooku bu toogee ba jëmmi jamono. président Macky Sall nangul ko dajeek moom nangul ko waxtaan ak moom nangul ko laamisoog moom jubluwu ci woon dara lu dul fexe ba dialogue bi am bu jaloog ba amee mu jaar ci tas mbooloo Yewwi Askan Wi isolé Ousmane Sonko tàggalikoog ñoom Khalifa ak ñoom Barthélemy pour am xëy na li mu bëkk ci moom loolu nag président dafa mel ni am na ko maanaam méthode boobu ñu naan diviser pour mieux régner dafa mel ni moo leen dal tey mais lii yëpp bu amee defe na ñàkk xaranteefu kujj gi la de façon général parce que nag dafa am loo xam ni feeñ na ci élection législative yi amoon deux mille vingt deux li feeñoon mooy sénégalais yi seen jëm bopp dañu jël li mu député boo xam ni ba ñuy voté ba léegi mës sa am Sénégal jox ko kujje gi maanaam juróom-ñett fukki député ak ñaar. nga xam ni tuutee desoon ñu am majorité au niveau de l'Assemblée mbooloo moomu muy quatre-vingt-deux députés bu ñu toogoon nekk benn say biir assemblée rax ci dolli am ñoo xam ni mën nañ bàbbeeku sax ci majorité bi fekk ci leen ñoo xam ne xëy na dañuy jàppale mer Mimi ak lañ ko mënti def kon bu boobaa dinañ am mbooloo moo xam ni. lépp lu ñu bëgg a am ci mbirum loi ci mbirum élection yoo xam ne ñëpp lañuy bokk mën nañ koo am te du jar ñuy bàyyee mbir mi président Macky Sall ba muy jaare ci dialogue bi pour tas seen mbooloo parce que nag bokk na ci mébét yi nga xam ni Yewwi Askan Wi ba ñuy daagaan baatu askan bi wax nañ ko mooy bu ñu leen joxee toogu yu am solo assemblée bokk na ci proposition de loi yi njëkk a def dugal ci mbiru Khalifa Sall ak Karim Wade naka la ñuy bokkaate ci élection yi waaye li am mooy bañ ko waxtaanee biir Yewwi Askan Wi ba nar koo dugal waa taxawu dakaar maanaam xalifa ak ñoom Barthélemy ñoo ni mbir moomu teg leen ko ci suuf ñu bëri nag njort ni jamono jooju xëy na ña nga doon waxtaan ak ci suuf président Macky Sall pour loolu ñu jaarale ko ci dialogue national bi ba looloo mujj antu proposition de loi boobu tege na le seen mbooloo tas ñu gis ba ñuy installé rek bureau assemblée la nga xam ne moom lañ fa nemmeeku cest à ñaar ñoo xam ne bàbbeeku nañu ci biir Yewwi yi Wi ku ne dafa nii ba bëgg nekk président gis nañ ñi nga xam ni moom la wallu itam taxawe nga xam ne bi mu amee limu député rek jëlee ko ci intercoalition yeew yi dafa taxaw moom fële. ni man damay am sama group loolu nag laa naan kujje gi pour wu ñu dara ci li mu député yi nga xam ne askan bi joxoon nañ la ko te moom moo leen jural lii ba ci mbirum Barthélemy Dias mi tey nga xam ni buñ ko dee wax ci tubaab mën nañ ni c'est l'arroseur arrosé te bi mu meree bërki dem bay wax am na kàddu yu mu jibal yoo xam ni bu ko bàyyi woon xel ca jamonoy président Macky Sall ba mu koy woo ci dialogue ngir tas mbooloo yeewi askan bi kon du doxale noonu ndax bi muy wax ci mbirum Ndiaga Diouf ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yëram wax na ba ne ay nervi rek lañu ñu comme ni ñu ko nemmeeku woon ci jamono yii ñu weesu am fu mu jëmale kàddoom te ñu bari gis nañ xew-xew yi fi am ni ci nervi yi taxawee ak fi ñu bari ja njort fa la jóge wax na itam. ba gaaral ni am na ab mandataire boo xam ni gisoon nañ ko ca ab kanamu institution ak enveloppe xel yépp dem ci mbirum Jibril Ngom ma nga xam ni moo doon mandataire Yewwi Askan bi fële ca maatam ak la ca miti xew yépp waa kooku nag bu fekkee gis nga pexe yu mel noonu ci moom ba mën koo ŋàññ tey jamono jim lay woo waxtaan nga xam ni xëy na li ko ci tax a jóg du dara lu dul sàmm intérêt boppam ak intérêt kaam ak yow tas sa mbooloo loolu nag na la mi Dias umpale ba li ko dal tey jii ci wàllu politique dal ko même bu fekkee ni politique encore une fois moo lalu ci décision yu bëri yuy am ci ñee nga xam ne way politique la ñu leen di àtte ci kii te loolu rafetluwuñ ko ci wàllu démocratie